ci dekkee ñu tàqalikoo la ñuy doon kenn bokkul sa morom melo kenn niroowul ak sa morom kenn du xool dañuy dekki nekk ay noppi jaboot muy ñan mooy ñu daan rambaaj di jaxase nit ñi xulóor di xeex wala ñuy noonoo wala ñuy bañante koo ñëw ci moom wax ko lu dul ci moroomam dal di am lu mu ko fasal ci xolam ak lu muy jëflanteeg moom te bu ñu wax jooju loolu du am loolu bu ñuy dekkee ay noppi lu boot la ñuy doon bu ñuy dekki di ay mbaam xuux mbaam xuux ñoom mooy ñi daan lekk riba moom la ñuy sàbbi ci melawoowu masxalin jigéen melawoowu ñii loolu mooy sabona si mairie ala ko mas a saqar ñii la ñuy buñu ñu doxee seen tànk seen tànk day jëm kaw seen kanam gi la ñuy këpp ci suuf di ko doxee di jot jot ci ñu mbott ñun ñooñu daan lekk riba ni bu ñu dekkee dañuy gumb qaala rabbi lima xashartana ya amma laqad kuntu basiran qaala kadalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika nuditu lsaa wa kadhalika nujzi man asrafa wa min al ajrin wa la bulaqata sa ñu daan jàng ci atté ñu dékk tëx ñi ñi nga xamné dañu gisoon seen bop yëg seen bop naw seen jëf dapp na ñoo gëm ñeneen ñi dékk di yëy seen lam yi mu bocc ko ba ak seen yóomu tànk yi mbéelu ñu di sotti ko ñu xew kenn kenn muy leen a jege mooy borom xam-xam yi nga xam ne li ñu daan wax dafa wuuteeg li ñuy jëf